السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوني ستان تبير ميك بتم ريو سن اكيب كومينيكاسيون جنتون لمن نزمه مونيو تايفين خامني مو موي كير والو ياموك موك الخميس ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre atum 2024 Tombe, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru gàmmu atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn tey nag ñu ñëwoon ngir nemmiku lii nga xam ne mooy sinistre yi nga xam ne ñoo ñëw ci barab bii muy trente chambre yoo xam ne jagleel ko sinistre yi waaye état bu Sénégal tam def fi liggéey yu ama am solo tente yu mag yi quinze tente yoo xam ne état bu Sénégal moom moo ko fi indi lu mel ni ay indi nañ ko fi waye tam indi fi ay matla ak ay lal ci lim yu takko takku ngir baña guddal dañi ag ak yeen ci bir fekk sinistre yi fi ñu nekk laaj leen sen cadre de vie nan la demee ci walu dëkkin wi ci walu nekkin wi and ak yeen ci élément yoyu la fi yobul leen poste ba ñu fat leen ba pare jox leen seeni garab ñu ci wat bi moy sama bi voyage. man ma ngi tuddu Soxna badian dekk Touba Ndamatou Kat foofu laa dëkk man na yàlla dogal na maay jëwriñu waañ bi waaye waañ bi moom wax dëgg fa yàlla macha allah dépasse bi suñ xëyee maanaam nu nombre nit ñu toll rek danañ ko joxe ñun dépasse ñun ñu jiite man mi jëwriñu waañ bi ma ak ñeneen ñi ma àndal ñu dem marché ndugg ko ba mu baax ñëw togg ko suñ ko toggee tamit du may taxa si waañ bi ñeneen bu kenn tibb yóbbu si néeg bu kenn tibb dugal fenn nañ jàkk palaat yëpp ñu génnee taaj mbooloo mépp lekk ndax wax dëgg fa yàlla fii dara manqué wul suñ xëyee café gi day mat mburu mi day mat lekk yi tamit macha allah añ bi dana mat danañ añ ba desal reer bi dañuy añ ba desal macha allah lépp a ngi doy lamp yi mi ngi leer xale yi daal moom ñëpp ñu ngi si jàmm ñu wax ñu ngi mel ni comme ku nekk suñ kër rek ndax bañ nekkee suñu kër ndox mi bëri na lool man mii di wax ak yow sama néeg ndox mi ci suuf lay balee du jóg suñ mbokk jullit yi fi nekk yëpp problème mu néeg moo leen indi ndax bu doon ëtt kese amut problème ndax boo génnee mën ngaa xuus dem faji say soxla boo ñëwee raxas say tànk waaye nag comme te yow ya dala leer na soo duggee sa néeg mënoo tëdd mënoo toog boo tegee sa tànk du dem ak tout tànk yi wóorul ak weñ si dem ak feer yeeg yooyu wóorul moo tax yàlla dogal ñu jég na lii am na ñu ñëw biñ ñëwee tamit yàlla dogal na leen loo xam ne naqari nañu fi loo xam ne war naa tax mën a tax ñu walanteeru ñibbiwaat gisuñ ko fi mais nag suñu sañoon tamit lañu ñu gënal te dàqal ñu mooy tamit ñu xool kër yi ñu xool kër yi bu baax a baax a baax a baax ndax am na ñoo xam ne seen i kër bu fekkee ne mën naa defaruwaat ñu defaru ñibbisi daf ñuy gënal su leen leeree ne tamit kër yi mënut a defaruwaat tamit buñ amee feneen fuñ mën a nekk ñu nekk fa tamit kenn ku ne jot sa bopp daf ñuy gënal. faj nañ ñu faj nañ suñ doom yi waaw te kenn fayu dara ñooñu yóbbu indi ñu bañ demee jox nañ leen lu ci war jox nañ lu ci mel ne ay garab ak luñ dundalee suñu njaboot moom kay wax dëgg yàlla jërëjëf rek la ñuy wax. fii nag neex na lool comme ni nga ko waxee lekk gi bari na naan gi bari na mais buñ ñu mënee jàppale fi ñu dëkk ak dëkkuwaay moo ko gën fuuf ndax fi mu nii bu ñu soñoon kenn kuy lekk mbaa ngay naan lekkee ko sa kër naan ko sa kër moo dàq fuuf ci ñun. yàlla dogal na ñoom amuñu fi benn jafe-jafe ñi ngi lekk ñu ngi naan médecin bi léegi la fi jóge pour ku am problème mu faj la waaye loolu li muy baax baax baax tamit bëgg nañ am leneen loo xam ne moo ko gën a baax ndax ñi fi nekk ay goro ngi fi. ay néew ji doolee ngi fi ñoo xam ne budul nawet bi sax am nañ jafe-jafe ngir wàllu dëkkiin waaye am nañ jafe-jafe ngir wàllu yëngatu loole lépp nag ñoom bëgg nañ ku leen jàppale ci moyen yoo leen mën a jàppalee ngir ñoom ñoom ay jëmtukaay yi ñu war a mën a am ba mën a delluwaat seen i kër ngir waajalaat seeni barab barab yet am na ci yoo xam ni ndox ma dugg na fa ba am lum ci yàq am na ñoo xam ni seen ay miir daanu nañ ñu bëgg defaraat ko balaa ñu fay dugaat am na ñoo xamante ni seen i fonds ferdi ya nekk si biir kër ga yàqu na te buñ sañoon defaral ko am na ñoo xam ne seen cabine ya ñuy demee toilette amul suñ fa nekk te nit ku nit dëkkuwaay wax toilette kon loolu bokk na ci loo xamante ni ay jafe-jafe la yu ñuy dund fii nii di di santaat état ndax lu mu lu mu néew doole ak lu muy eh, dara dara mu ngi fiy yebal santé bi tey xayma yi it am na ci yoo xamante ne moo fi indi ngir jàppale ko société bi waaye li ñuy bëgg loolu tamit bëgg nañ ndimbal lu gën a ëpp loolu état. ndax ñii fi nekk nekk doomu réew mi lañ waaye doomu sénégalais doomu sénégalais lañ te amuñu fenn fu dul sénégalais jafe-jafe yi nit ñi dund nag des fois ñu gis nit ñi jël nañ gaal gi dem nit ñi def nañ li dem. problème mën na yóbbu ci nit lu nekk ndax nit ki bu demee ba jaaxle fi mu dëkk te amul wéeruwaay amul ko ko soutenir amul ko ko jàppale amul ku ko conseil mën na wéet def loo xamante ne sax du neex yàlla te nit ki dafa soxla bu nekkee ci jafe-jafe ku ko taxaw mais ku koy labiré mais ku koy encadré ak nit koo xam ne daf koy delloosi ci wàllu diineem ak di ko xamal yonent bi salaahu salaam ak di ko waroon sëriñ bi nan la tegee yoon wi om egg fi mu egg kon loolu soxla nañ ko bu baax a baax a baax ku leen ci jàppale ngir ñoom ñu mën a wéyal seen dund comme ni nit ñi dundee bonne santé ñoom tamit ñu mën a dundee bonne santé nit ñi ñu nii toog ci garab yi am na ñoo xam ne tey dañuy ñëw di commander mais amuñu fu ñu dëkk ñoom it ngir bëgg am na ñoo xam ne dañuy laaj beneen problème la ñuy wax mooy ñun kat dañoo amul ay kër yu ñu dëkke ñu xamal leen ni kat ñun fi dañu fi téye ni ngir ndox mi mais waxuñ ñu dañ leen jox ay kër looleet ñi koy dégg ñu xam ne loolu moo moo tax ñun ñu nekkandi fi waaye lu ci mën di am tamit nañ xam ne askan wi daal bëgg nañ ko leen taxaw bu baax a baax baax baax. jërëjëf mbokk yi àndoon ñun tey lii leen seen équipe communication bu junnatun li man na sama indiloon. ci caméra bi Serigne Ousseynou Mbodj ci micro bi Mbaytan Touba Gambi wasalaamaaleykum wa rahmatullah